salaamaaleykum àddina salaamaaleykum Sénégal ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax am mbégte teew fii nga xamante ne mooy rëbës balaa boobu ñu ngi nuyu kilifa diine bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàggal leen fii yàlla bàyyi leen fi di ñaanal kilifa aada bu baax ñu ñaanal ñi nga xamante ne caabi da leen féete ginnaaw yàlla génne leen fi ñu ne di ñaanal ñi nga xamante ne danoo tëdd ci lalu hôpital yàlla fëgg seen bopp ñi nga xam ne dañoo feebar nekk ci kër yi aussi yàlla génne leen tey ji nag ñu ngi fii nga xamante ne nag mooy rëbës boo rebes rëbës sa xel nag day dem ci ñinga xamantene ñoy dutti ñuy détenu fi waye fii def da di dekk ben dekk way moy tour bi waye tay ji nek ma ngi taxaw ak ñinga xamantene moy wa croix rouge bu Cambérène tay ji ñom la nekkal fi ñu nar fi organiser ben affaire ndax yaakaar naa ya kan, nah, loolu bala ma ci xoos damay waxtaan ak ki nga xamante ne mooy eh, limaamu ngi lay ziar. ma ngi delloo ziar ci ne. sant yalla alhamdullilah wa dum bëgg nga présenter wu. waaw maa ngi tudd Limamoulaye Gueye nekk comité local bu Cambérène je suis le chargé de la communication voilà nekk en même temps le représentant des jeunes. léegi lu lu waral li tey jii ngeen bàyyi Cambérène fi nga xamante ne fi ngeen nekk ngeen ñëw tey ba fi nga xam ne mooy organiser fi lu mel nii. waaw macha allah Jacques loolu boo gisee lu tax ñu bàyyi Cambérène ñëw ba rëbës def fi li nga xamante ni 48 heures de logo pour tous et pour les détenus. dafa fekk ni yàlla dafa def dañu am un frère boo xam ne dañu nekkoon ak moom doon defandoo ndogu yi à Cambérène mu bokkoon ci ñun te yàlla dogal mu nattu dal ko mu nekk fii à Rebeuss ñu bëgg ko rendre hommage def ndogu bi nga xamante ni mooy pour les détenus en son honneur tuddee ko ko gis nga boo gisee ci lacoste bi wala t-shirt bi ma sol muy à l'honneur de Birama loolu moo waral tey ñu ñëw fii defee fi ndogu bi nga xamanteni mom moom la comité local bu Cambérène organisé waaw. est-ce que affaire bi ndogu kese la joxe ay ndogu kese la wala amana ay yenen bagage yoo xamante ni pare ngeen ko aussi. waaw 48 euh, heures le d'abord dañuy commencer tay jii samedi bi suñu noppé xey ci dimanche bi inshallah agaliko ndogu la ak ay dons yu nga xamanteni population bi askan bi yeb japp nañu ci.

comme que dañu nek ci weekend end don yi dañ ñuy jour ouvrable à n'importe quel jour bu ñu ñëwee dinañ ko mëna ki lolu c'est déjà acquis jot nañu def démarche yi nga xamanteni war na ci yépp def nañu ko ba nopi légui du desul lu dul nek suñu jugee ci ndogu yi 48 heures rek inshallah ñu ñëw ñu def don yoyu nonu jaglél ko suñu suñu frère yi nga xamanteni ni nek nekk fële comme que ñu xamé croix rouge rek amul distinction de race amul distinction d'ethnie amul personne ñun nit ki lañu xam nit lañuy doxé du religion du que waral ñu motiver wu ci voilà. wax ci kilifa pour euh, wax. waaw lancer un message surtout au ministère de la santé ñu ñom ñi nga xamanteni mom bu muy liggéey ndogal bi mu ngi fekk mi ngi ko fekk mu doon liggéeyal croix rouge waaye sous tutelle du ministère de la santé ndax mi ngi woon ci e centre de traitement des épidémies la koy dal fa la ko dalee ba ñu andi ko fii. léegi ñu ngi ñaan nañu ko nañu nañu gestu dossier wam ñu taxawal ko lu ci mënti am ñu xam ni noonu la demee ndax mu ngi fi bëgg a mu ngi ci huitième mois am gars yi ñu ngi démarché nag gars yi ñu ngi démarché mais ba léegi daal mën nañ ni dara soteegul ñuy ñaan ñu ñu taxawal ñu ci loolu képp koo xamante ni jot nga message bi di autorité nga mën ci def dara ñu ngi lay ñaan parce que la croix rouge elle est ñun comme nuñ ñu ko xamee waaw doxuñu ci daraay caaxaan doxuñu ci dara loo xamante ni aussi dafay yàq ñu ci dara loo xamante ni aussi dafay nuire la stabilité du pays ci li ñuy dox rek mooy nu ñuy def ba askan bi am jàmm ñëpp am jàmm social bi di dox ñëpp bokk ci yam loxo yëpp buñ ci duggandoowee moo ëpp doole que benn loxo bi kese def ko loolu moo waral tey jii ñuy lancer appel bi on appel boo xam un appel boo xamante ni dafay jëm ci ñëpp bàyyiwuñu kenn à la croix rouge comme or croix rouge ku ci mën a lu mën na ci def ngir sunu frère bi dellu si waat si ñun delluwaat si suñu activité ak jàmm waaw beneen bi ci des ñu ngi ñaanal yeneen détenu yi fa nekk yëpp parce que fële du sago moo fay yóbbu nit ay ndogal moo fay yóbbu nit di ñaan suñu borom génne leen fa ci jàmm ñu delluwaat ci seen i activité ak si seen i njaboot incha allah. merci Libaas yaakaar naa après dinañ mën a ànd ak yéen euh, journée bi tey euh, ñu séddale leen ndogu yi euh, ñu xoolaat yeneen bagages yi nga xamante ne taxawoon taxawoon ngeen ko. tamit di lancer appel ñi nga xamanteni tamit moy kilifa yi ngeen jappale ñi nga xamanteni ne moy suñu frère muy Birama ñaa xam noonu ko bu baaxa baaxa baax muy jambar jambar euh, manam chaque année da nga daan gis ci kanam mu ne ci kanam mu daan am taxaway bu rafet taxaway bu am solo bo xamanteni daan daanaka ci taxawé aussi kon tay ji ndogal bu ko dalé parce que ñi nekk fofu ñu gënuñu leen gënuñu leen faaw ñu xam loolu ñi nga xamanteni tay ci abi fétti leen dañ leen wara ñaanal yalla génne leen fofu parce que loolu jombul kenn jombul kenn kon tey jii wis dama bëgg ñu ànd nag ñu ànd ak gars yi ñu dem xool lan la ñu waajal ci li nga xamante ne tey mooy bésu tey ñu dem jëlaat ay yeneen euh, ndax des na lu bari loo xamante ne war nañ ko wax wis toppama ñu dem ci biir bu ko defee ñu amaat yeneen affaire daal incha allah. ay naa la waa Ndeye Fassaw mbay présidente comité local Croix-Rouge Cambérène waa suñu taxawaay tey dañu organiser benn 48 heures ndogu boo xam ni. ñu ngi ko organiser suñu benn élément bi nga xam ni dafa nekk fii détenu à Rebeuss moom lañ ko organiser hmm. waa li ma ciy wax mooy xam nga suñu élément bi chaque année mois de ramadan bi ñoo doon bokk séddale ndog bi mais année bi yàlla dogal nattu dalka mu nekk fii ci prison bi yàlla dogal lool léegi moo tax ñu jël ndog bi indi ko fii pour àndandoo moom séddale ko waa li may benn élément bi nga xam ne da doon liggéey ci seete santé ñoom ñoonu tegoon si seetee yi mooy si début corona pour ñu liggéey fa nattu dal ka fa yàgg na torom bi dossiers yi lu nu si mën a jàppale ñu jàppale nu si ndax huit mois am na ko ñu ngi si ndax mën a jàppale rek ñu jàppale si tax eh, ndogu yi ñu jublu si incha allah kon nañu ànd ak ñoom dem leen ndogu yi waa mbokk yi lii la leen indiloon tey jii fi nga xamante ne mooy rëbës ñu àndoon ci euh, ñi nga xamante ne mooy croix rouge bu Cambérène mu nekkoon à l'honneur de Birama Niang Birama Niang nekkoon xale bu am jom xale bu jàmbaare xale bu téye boppam xale boo xamante ne diine ji rek moo ko ñor xale boo xamante ne tamit képp képp ka nga xamante ne dégg nga li ko dal tey jii am nga lu la metti te nag ñu ciy lancé appel ñi nga xam mooy autorité yi ñu jàpp si ñu taxawu ko parce que xale bu am jom la ba pare en même temps soutien de famille la euh, di leen gërëm di leen nuyuwaat di leen ziyaaraat di leen baalu ak ci weeru koor bi donte metti na maa ngi nii ci biti laa nekkoon mais dama mujj wax wiis dañ jëm ci biir bu ko defee ma toog mën naan kafe jël li may jël moo ci jee ci biir parce que actuellement dama doon miir ndax mënatuma woon gis parce que koor dafa metti loolu am na bu ko defee maa ngi leen di baalaat àq di leen baalu àq ndax man dama man tooñ te àq dafa sew may ñaanal kilifa diine yi bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaanal kilifa aada yi bu baax a baax a baax a baax di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla wàcc jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla wàcce jàmm li nga xamante ne mooy mbas bi yàlla na fi jógee ci jàmm ñu delluwaat ci rythme bi ñu nekkoon ñi nga xamante ne caabi da leen féete ginnaaw yal na leen yàlla génne fi ñu ne ñi nga xamante nag dañoo ci lalu hôpital yal na leen yàlla yëkkati fi ñu ne génne leen ñi feebar nekk ci kër yi yal na leen yàlla yëkkati iya, ci kaw jàmm di nuyu nag eh, suñu mbokk yi nga xam ñoo nekk ci diaspora bi di bëggee social tv ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen ñaanal yàlla leen yàlla taxaw yàlla doole leen yàlla sutural leen sàmm leen aar leen ba waat leen ci ñun doole sang ba ñu leen jox di daje ci beneen eh, édition incha allah njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex fi wala location mo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayel sa produit cën mu gën a gaawee fakal maître de en rapport ak suñu ay clientèle ñi nga xamante dañu soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko défé ñu ñëw sa biir kër dal lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu euh, leer nañ ak ay vidéo yu doy waar dal di koy poster ci suñu page bi di social shopping immobilier bu de faits, Yen, ngeen woote 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër